alhamdulillahi rabbil aalamiina yaa rab irfa maqtaka wa gadabaka anna yaa rabbi laa tuaaxidnaa bimaa faala sufahaau minna utuf binaa fiimaa jarat bika almaqaadiiru fa innaka ala kulli cheyin qadirun wa bil ijabati jadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri la uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi 2STV yi ne ci biir réew mi ak bitim réew ak fu ngeen mën a ne di ànd seen télévision la 2STV waaye di ànd seen rajo origine fm 88 point 4 del soir nañu yéen seen jodaayu daara ji ñu tuddee tafsirul quran ci bis bu màgg bii di yowmul jumaa ñu leen di nuyuwaat bu baax di leen ziyaarawaat di leen balu xaq te di leen ko baal du ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu ñuy def dëgg dëgg jullit di ñu baw ak suñu iman di rek li ma daan fàttali ci àjjuma yi moom di ñaanal imam yépp nag aima yi macha allah kenn ko ci nekk di waajal jiite yal na yàlla nangul la sa julli nangul ñi nga jiite ñëpp seen julli xutba bi nga leen indil yal nañ ci am dégg ak topp barke alquranul karim di ñaanalit macha allahu jullit yépp nag yal nañu yàlla xiir ci julli ci yonent bi moom julli ci yonent bi lu baree bari dina baax bu ñu fàtte it macha ci ñu ko man suutul këf yi saa yi laaj ma ko nag ñu ma suutul këf laa bëgg jàng man la ah jàng mu yàgg la fexe daal ba mën koo liir daal boo jógee rek jëlal sa téere jàng xool liir ba mu yegg bu dee mën nga ko ndax saar bu gudd la rek taxu koo gàtt lool boo jógee ci suuf moo topp ci Mariama soo jógee ci kaw Mariama mooy topp ci moom kon saar bu am solo la yu bare ngi ci nag di ko jàng ajjuma wala guddik ajjuma gi bu jotee rek ba ajjuma bi di jeex foofu am itaa rek jàng am na solo kon mbokk yi biñ fi mujj ci tafsir bi amoon nañu ci saar bi dose versets muy sutul Ahqaaf te ñu war a jël treizième verset borom bi subhanahu wa taala am ñu muy wax ñoo xam ni dañu am mérite mérite bu rëy euh, mu leen di tagg ni inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu yàlla nee na yëgal ni gaa ñi nga xam ne ñoom dañoo wax ni ñun de yàlla mooy suñu boroom loolu lañu wax ñépp dégg ginnaaw loolu su mastaqaamu topp nag ñu jub xocc nag jub wax nañ loolu ba pare boole ci njub nag doon ñu sérieux doon ñu jub ginnaaw ba ñu waxee ni yàlla mooy seen boroom dañ caa teg wone ak njub gu rëy a rëy loolu lañu wane mu nii ñooñu dey falaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun nee ñoom du ñu am lu ñuy ragal te du ñu am lu ñuy jàq fee ñu jëm di yowmal qiyaam te du ñu fa ragal dara waaye li ñu bayi seen ginnaaw yi du ñu am njàqare ci ñoom loolu nag tolluwaay la allahu akbar saxaaba bi ñuy wax abdullahi ibnu masudin bi muy génn àdduna yàlla ay doom yu jigéen rek la ko mayoon ndeysaan bi muy faatu te taxul woon sax dooleem bari ndax Usmaan yónni ci moom ñeewante ko lool bëgg ko appuyer financièrement ngir njaboot gi muy bàyyi ginnaaw biñ ko ko waxee wax na ko sax lu bari waaye boobu rek laa ci jël kàddu googu mu ni Medina Ousmane kontaan naa yàlla na ma ko yàlla fayal waaye nekk bu mu am inquiétude bu mu ragal dara sama njaboot ndax kat fexe naa ba ñoom ñëpp mokkal nañ suratul waaqia muy ida waqaati lwaqia laysa li waqaatiha kaadiba xaafidatu rafia ida rujjat l ardu rajja wa bussat l jibaalu bassa saar boobu fexe naa ba samay doom yëpp mokkal na sama soppe ba sallallahu alayhi wa sallam nee woon na saar boobu de kuy def guddi guddeeg bala ngaa tëdd nga jàng ko ñàkk du la sonal mukk ñàkk du la sonal jéem la yeneen bi wax nag xam nga kii doon wax lii de taxul mu bari doole financièrement de kon léegi ñàkk mooy lan dañuy jàngat xam nga dina am lu dul jeex te ñàkk parce doy luwul yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na doylu magasin bu dul jeex la waaye boo doyluwul moom doo koy sonn rek war ba bi ma qasama allahu laka takun agna naas nee na boo bëggee doon un richard nee na li la yàlla jox na la doy nit da doyloo li la yàlla jox yàllay séddali li la sédd nga bëgg a forcer rek ni déedéet fii noonu dama war a romb fii nu mu gën a gaawe fii ma tool dama ko war a romb ci nu mu gën a gaawe ah du noonu de du noonu de mu ni kon Abdullahi ibnu Masud loolu la wax ni ko man samay doom loolu mën nañ ko te yonent bi neen ku ko man moom ñàkk du la sonal kon xam naa ne du ñu am problème sama ginnaaw kooku de mooy falaa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun jàngu moom de jàqul ci ginnaaw mi amul ci tiit amul lu muy xalaat bari na kuy faatu koo xam ni njabootam rek la xalaat ay sama njaboot nu may def nu ñuy def sama ginnaaw tout tànk yi ma bàyyi mën a la guñ seen bopp dara waaye xamal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaay ji di bàyyi ñeenti at wala juróom-benni at la am te fekk ko fi bàyyi nag yàlla ay ci ñooñu bu la téyee rek nga yéem bari na fii ñoo xamante ni ba ñu doon jirim ñenn ñu bàyyi xamuñu sax seen melo laaj dañoo laajte seen melo ndey ak seen melo baay koo xam ne sa baay génn na àdduna avant ngay génne àdduna xëy sa yaay bi mu lay accoucher sax si la faatu moom it muy mortalité maternelle kon yow melokaanu ndey ak melokaanu baay yëpp danga ko laajte wala bi ñuy faatu âge bi ñuy am ràññee woo jotoo ràññee sax seen kanam yàlla jël leen mu ni loolu de xam nga ni way jur ba buy dem dina jàq dina la buy dem dina jàq waaye dina jaaxle mu ne nag boo dee nee nga yàlla mooy sa boroom ba pare ngay jubal looloo sart la ci mbir mi du ay waxi kese nag wax moom eh, luy wolof naan legetu legetu kese naxul bay de wax rek defe ni yow daal sa diine diine wax la rek yow doo pratiquer dara waaye fu la fekk moom wax moom yaa ko dàq ñépp du dem de du yomb te du baax kon jëf ji dafa war a ànd ak kàddu gi dañoo war a dëppoo kàddu gi dafa war a dëppoo ak wax ja maam bu baax ba wax na ko nee na su fekkente ni jël nga sa jëf séyale ko ak ak kàddu gu dëggu nee na bu ñu amee doom de doom jooja bu amee nguur nguuram du folleeku du jeex boo waxee rek soo jëfee dañ ko war a xam ndax lu waay di wuyoo da ko war a nuru munu ñoo dee du ñu tiit te du ñu am dara lu ñuy jàq munu lay ka asxaabul janna yàlla nee na mel nii nag ñoom ñooy ñooñ àjjana ñoom ñooy ñiy dëkki àjjana waaw waaw ñooy dëkki àjjana waaye li ci gën a neex mooy xaalidiina fiiha àjjana moom day neex te du jeex sidna omar abu bakrin àjjana neex na waaye du jeex looloo ci gën a neex àjjana ginnaaw ba mu neexee ba pare abu du jeex xam nga fii yi fi neex yëpp day day jeex quoi loolu mooy problème bi ah, ak gisoo gaa yi suñu nguur gi yenn saa yi ñenn toog ci nguur gi rek muy neex rek ñu defee ne du jeex moo tax toujours da leen di bett neexaayu nguur gi moo tax doo ñuy dem ba duñ ko bëgg a bàyyi moo tax yàlla am ful la ci nguuram gi nag samba boo demee ci yàlla nee na bu ma mu la ko jox la koy jox tu'til mulka man tashaa dama lay yombalal lépp ba nga jot ci nguur gi lépp lu waroon yow da lay yomb waaye it bul boo ko jëtee su jeexee bàyyi waaye nee na boo lànkee ni du ma bàyyi wa tanziul mu nee na dama koy nocc force dama koy xëcc nangu ko nga xam ne yow jaroo defal teraanga waaye nag neexaay bi mooy tax train de vie bi mu lay may may ko say proche may ko ko ànd ak yow day neex lool ba yéen fàttali dina jeex dina jeex yàlla nag moom àjjanaan ja la ca neex mooy day neex waaye xaalis dina fee nee na du jeex dañ fay béel ne fa rek duñu génn wa yàlla ñii lu ñu def ba am loolu mun jazaam bi ma kaanu yaamaluun lii mooy seen fay ci lu baax liñ doon def yàlla baax yàlla nee na ajjana jooju muy dugal gaa yi yàlla buñ ca mucc ñun ñëpp yàlla nañ ca dugg nee mooy seen fay ci jëf ju baax jin doon jëf yàlla pare foofu nag dugg ci wéju ndey ak bàyyi nin leen war a font mu ni wa wassayna al insaana bi walidayhi ihsaana nee na dénk nañu doomu aadama ay waajuram dañ koo jox ndigal sax ndénkaane gu ànd ak ndigal la ci ne na rafetal jëmale ci ay waajuram waxuñu la bul ñaawal rek de sama sama papa sama yaay du leen def dara lu ñaaw yow doo war woo yem foofu de danga war a def lu rafet jëmale ci ñoom yàlla moom ginnaaw bu tuddee boppam tegu ca kenn yaay ak baay la ca teg ndey ak baay la ca teg ginnaaw bu paree ci boppam mu la mu mu wax la lool mu ni kon yàlla li mu bëgg waaw mooy ndigal lu wér la la jox ci ni na nga fexe ba ndénkaane bi ñu la dénk mooy na nga rafetal jëmale sa wajur ak am solo ak am solo ak a jar a bàyyi xel booy dem programme ab samba ñu jox la caméra bi dan la yeb bi sa bi caméra 2S la dafa cher liñ ko jënde demal li filmer mais na nga def attention bu mu daanu bu mu yàqu kooku dénk nañ la ba pare jox la ndigal la dénk caméra bi waaye jox la ndigalu ni fexeel ba bu mu yàqu bu ko daaneel bul ko aale bul ko def dara bañ nañ ba ki lay yóbbu sax oto rek bu amul oto moom ay taxi sax duñ ko ci dugal ndax fonk guñ ko fonk kon fonkal liñ la jox kon loolu digal la bu ànd ak ndénkaan yàlla it noonu la fonke way jur ba ni nañu rafetal jëmale ci suñu way jur mu ñëw nag ci ndey mu ne xamalatuhu ummuhu kurhan wa wadaatuhu kurhan nee na suñu ndey yi ndeysaan dañu dañu ëmb ci coono wasin ñu ci coono ëmb ak imbi lépp a ëmb ak imbi lépp a métti dafa dëgg yàlla nit lu nekk lu bokkul ci yow rek bu ci duggee nga yëg ko maa la wax loolu abu fi li muy li muy nekk ci céet neen na moom laa xool ne ko nag li de miel bi un an la de jeexagul de fi nii lu muy seetu seetu boo waroon a dem seeti goro yi ànd ak soxna si sañ se ba rafet sol trois pièces am wala deux pièces sol na costume am ba cravate ba rafet lool ànd ak moom dem ba ca kër goro ya toog di waxtaan yëg ni yére bi ci biir yére bi ay melentaan dañ cee ne foofu dootu dootul seetati goro de bu kom buñ ñu commencé jëfandikoo ci yaramam bu buy fëggatoo du ko tey tax ah yée koy moom neexal goro yeggul foofu parce que <clears throat> dafa am lu dugg ci moom te bokku ci dafa am lu dugg ci moom te bokk ci looloo ko sonal waa kon ana jigéen nit nekk ci nit musul nekk ci moom jékki-jékki dugg ci biiram ah mbokk yi loolu yombul ëmb dafa metti de bari na jigéen ñoo xam ni am na am nañu mbañte ci ëmb lañ ko jële naaj wu tàng wii nga xam ne yow mosoo nangoo génn ci naaj bi naaj bi day joxe pal yi day lii sa ëmb toll foo xam danaan la génn génnal doxantuwaay nga génn ci naaj wi di dox loolu lépp ëmb bee ko waral foo tëdd boo jóg di nga toll ci ëmb bi foo xam boo jóg sax bu la mayul loxo doo mën a jóg nga sonn lool yenn saa yi nga dem ñu defal la écho ni xale bi de position baaxul de dafa nekkee siège il faut ñu wëlbatiwaat ko il faut ñu am nu ñu def sinon booy accoucher day fay compliqué ba mën na la jural césarienne ñu gis ko yenn saa yi xëy rek gis jigéen ji tànk yi néew yi lu xew ñu ngi moom day xam naan ci ëmb bi la xorom ne nee nañ ko fi ne bu dara lu saf xorom ba keroog muy am ko kon ëmb moom dafa métti benn mu ne kon xamalathu ummuhu kurhan waaye woo wadaathu kurhan ni ëmb bi méttee ni imbi imbi bi gën a métteeti naa la am ju baax jamaam Ibrahima Sakho nee na entreprise bu xatee ni biiru jigéen ouvrier bu toll ni malaaka di fa liggéey bu fa latif ñëwul dara du baax latif rek naa ko jigéeni Sénégal xaw ma lu ñu mënul de pap waaye latif waxal latif moom boo ko xamul sax maire ba ca koñ baa koy waxal latif waaw waaw woo latif latifu huwa allah moom mi ngay woo nag saa yoo ko woowee ba mu wuyu la moom it bu la wootee wuyu ko waaw waaw bu la wootee wuyu ko bu la ne asalaatu xayru min an nawmi jógal julli jógal julli su la wooral ma wooral ma wooral ko su la demal màkka demal tey ay dee fi ne yombatul kenn mënatul a dem màkka jaa ngi julli di jaaxle lool waaye munuñu dem munuñu dem mu ndéy dama defe ni liñ lay liñ lay wan dama defe ni loolu waru la mën a nekki ni ñu koy wani di la wan benn chanteuse boo xamante ni mu ngi dëkk ca Liban war a dem ca Riyad tëgg fa benn soirée ñu permettre lu ëpp soixante cinq mille personnes ñu dem li maye nañ pour ñu seetaani te aj ji ñu ni soixante mille personne lañuy ñuy su fekkente ni di image yooyu ñu ñu jox dëgg la di gàcce la de gàcce gu rëy la ci lislaam yàlla na yàlla dimbali rek leeralaat yoon wi ah fi feebar bi ba nit ñi mën a dellu di aji si comme ni ko yàlla bëgg kon borom bi subhanahu wa rek la mën a woowe foofu mooy al latif moo ci mën a dimbali ci mu ni kon imbi bee mel noonu risque yi nekk ci am nag jigéen buy am doom moo tax dañ naan saa yu ko yàlla mayee boppam saa yu muccee ndax xam na ni ci danger la ne yenn saa yi moom mu ñëw bàyyi fa xale ba yenn saa yi xale ba ñëw bàyyi ko fa yenn saa yi sax ñoom ñaar kenn du ñëw mooy mortalité maternelle et infantile ñoom ñaar ñëpp ñu boole leen ñu dem yenn saa yi nga gis xale boo xam ne yaay jël lañ ko tudde lu tax yaay jël lañ ko tudde mooy bii bi muy ganee àdduna la yaay ji génn àdduna kon risque yooyu yëpp nekk na ci kon yaay ku ko am di ko fontoo yëgoolu xew koo ko jëndi nax nga sa bopp koo ko jëndi ci àdduna amul kenn ku la mën a wax ba wax la dëgg ni la fi nga ma war a teg waroo faa teg sa wéjur waaw loolu pour lan ba ba ban sañ-sañ rek yow moo la may lool su loolu loolu kay yàlla waxal ko boppam ci alquran waaye bi mu paree ci boppam rek ci wëy jur la dem mu ni wax am luhu ëmb ga nag wa fisaaluhu ak yor ga ñuy yor xale ba ak nàmpal ba ak yépp salaasuuna nee na loolu lépp mu ngi doon ci trente trente mois loolu it scientifique borom xam-xam yi l'islam yi wan nañ la ni kon li gën ci ëmb six mois la jigéen bu ëmbee six mois am doom bu ko kenn sosal hmm. <laughs> man de waaru naa kii de juróom benn weer la am doom waaw dara newu ci man nag waxuma ay waxi science waxi l'islam laay wax fi tey moom dama may gars yi ñu jël congé mooy six mois mënees na ci am doom te ku ci am doom sa borom kër ba nga nekkal mooy baay ba kenn du la sosal kenn du la waxal dara kenn du la sosal lépp loolu la waxal dal laa sosal waaye doom jooju mën na ne salaasuna shahran trent mois léegi kon bu boobaa trente bu ci six mois génnee vingt quatre mois moo ci des kon mën nga nàmpal deux ans wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna hawlayni kaamilayni kon su yéesee loolu maanaam bu fekkente ne grossesse bi dem na ba def grossesse su neuf mois neuf mois yooyu da ngay xoolaat liy mottali ndax lépp trente mois la waxoon mooy kon nampal bi bu mu weesu vingt mois vingt sax doy na nga fay nampalaat vingt quatre mois deux ans parce que boo jëlee deux ans yooyu muy vingt quatre mois plus neuf day romb trente mois yi la waxoon ci ëmb beeg indi beeg yar bi ba keroog muy fer ba feral bi du jot mu ni xatta ida balaga ashudda nee na loolu ne lañuy ñuy xale di ko yor di ko yar di ko toppatoo mu dem ba yaxam dëgër wa balaga arbaina sana mu dem ba am quarante ans tollu ci diggu ndawam quarante ans âge maturité la nit bu ci tollee xelam war naa màcc war di nàccit war a mën a comprendre lu bare bare bare wa balaga arbaina sana mu am quarante ans mu ni rabbi yow sama borom aw ziani maa ngi lay ñaan nga yénki wal ma def ci samam xel dimbalee ma taxaw ba an ashkura ma sant niamataka allati anamta alayya sa xéewal yi nga ma defal yow yàlla yàlla nag ma dimbali ba ma man laa sant bu baax a baax a baax xéewal yim ñu defar sant ñu la ko war sant sant ko daf ñu war bu baax a baax a baax dafa la ñu xéewal yu dul jeex samba xool rek buñ ko yàlla fay woon du baax gis ñuy gis rek bu ko yàlla fay woon du baax pour walla lool nag day dem ba si yàgg mun la non pour walla ni la li ma la joxoon am na valeur te xamoo ko mu wàññi sa gis li nga bu ko wàññee kii de boo ko takkee da ngay fay maa la wax lool tey nag du doon fay buy benn yoon de ngay def ba saa ñu ñëwaat xoolalaat sa waay yow sa affaire yi xool nañ ko mais fi ne dafa faible il faut nga yokkaat fayaatal yokkaat beneen yoon fayaat yàlla nag boobu ba léegi mu jox la ko ma soo fay jox la nopp ngay dégg jox la làmmiñ ngay lekk jox la gémmiñ ngay mos yéeg lu saf ak lu saf xoolal rek boo feebaree soo corona bi xaw na fee dof loo nit ku xëy rek sa làmmiñ sa gémmiñ lewet man daal damaa xëy tey moom dara safuma dara dama xet gu may dugg sama làmmiñ ñuy lewet yàlla moytul yàlla jox la loolu ngay yëg muy saf di neex may lay tànk ci dox may la loxo ngay laal may la bakkan ngay xëy xéewal yi la defal daal mënoo koo wax nga nekk nga gane àdduna mu ni sa gane àdduna bokk na ci xéewal yi ma lay defal bis bi tudd dañuy génne àdduna doomu jàmbur indi xar ñu ko nit kii gane àdduna moo yow sa doom ji nga amoon day génn àdduna moom loolu teraanga la teraanga la yàlla defal la xéewalu ngay màgg ba toll na la neex nee na li la war a njëkk war mooy ni ko yàlla yàlla nag ma yenkiwal mooy defal ci sama xel ma man a sant xéewal yi nga xamante ni anamta ala yi xéewalal nga ma ko wa ala walidayya ak xéewal yi nga ma defal ci samay wayjur jox ma wayjur yoo xamante ni ñoo ma yar rabbi irhamhuma kama rabbayani saxira may ma xéewalug may ma wayjur yu ma yar ba sànniwuñ ma ba ma juddoo am na ñoo xam ne ba seen doom juddoo lañ ko dugal ca foos am ñoo xam ne sa lañ ko sànnee ca mbedd ma dem waaye xéewal nga xéewalal ma wayjur yoo xamante ñoom day assumer nañu seen responsabilité ci man paye ma yar ma wa an amala saalihan tardaahu maa ngi santit bu baax maa ngi lay ñaan nga yénki wal ma ma am xelum di def jëf ju rafet joo xamante ni dalay kontaan loo yow yàlla wa aslix fii durriyati wa aslix lii fii durriyati yàlla yàlla nag ma baaxalal sama njaboot sama ëllëg maa ngi lay ñaan samay njaboot yàlla na ñu baax waaw sëñ daara ba cheikhun zaadahu nee na waa ji dafa ñaan ñetti ñaan benn bi moo yàlla yàlla nag ma baaxalal may ma xéewalu ma jaay jaamu ñaareel bi yàlla nag ma yombalal di jëf jëf ju baax waaye ñetteel bi yàlla na nga baaxal sama njaboot njaboot gu baax dañ koy ñaan yàlla bi dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla nag ñu may njaboot bu baax hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman mun kon mu wax loolu yàlla jëf ji may jëf yàlla nañ ci kontaan gis nga jëf baax na waaye jëf-jëf ju baax la ñu wax jóor ko rek yow indi ko yow da xeet xamul lu baax nga def ak lu bon loolu amul benn njëriñ nekkal examen ñu jox la sa feuille nga bind ko ba mu fees te la nga bind baaxul loolu du la ci génn de mu ni ko it wa aslix fii li fii duriyati baaxalal ma sama njaboot may ma njaboot gu baax a baax baax a baax yow borom bi yaa ma mën a may loolu de inni tubtu ilayka man tuub naa jëm ci yow wa inni te man de minal muslimiina bokk naa ci gaa ji nga xam ni dañuy wommatu nangul la yow yàlla loolu mooy al islam mooy bu yàlla nee waaw nga ni waaw su nee déet nga ni déet su la nee yamal nga yam su la nee demal nga dem boo la nee toogal nga toog loolu la ñuy wommatoo suñu digganteeg suñu borom mooy soumission totale jox yàlla lépp nangul ko lépp ni ko kon man de ci gaa yooyu wommatu laa ut si la yow yàlla tey nag tuub naa jullit day tuub ndax li ñuy def ci bàkkaar dafay bari de mu ne ulaayka alladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ñooñu de mooy ñi nga xamante ni yàlla nee na dees na leen fay gën jaa rafetug li ñu jëf parce que yàlla lu baax la am moo tax mu ne ahsana ma amilu li ma leen di nangul moo gën a rafet la ñu jëf yàlla nee na la ma leen di nangul moo gën a rafet la ñu jëf ndax góor góorlu gi ñu góorgóorlu moo tax ba wax ba ñaan ma pour ma may leen ñu sant ma ñaan ma ma may leen ñuy jëf-jëf ju ma gërëm ñaan ma ma may leen baaxal seen njaboot loolu ñu ñaan moo tax dinaa leen jox lu ëpp la ñu jëf dinañ leen nangul lu ëpp la ñu jëf wa natajaawaza an sayyi'aatihim ma baal leen it seen i bàkkaar jëllale ko jéggale ko seeni ñaawteef loolu it dama leen koy baal fi ashaabil janna ba pare du yem foofu da ba pare te leen di boole ci ñooñ àjjana yi nag waaw dañuy bokk ci ñooñ àjjana ñi nga xamante ni àjjana lañ jëm nee na foofu lañ leen di boole waaw seen rëcc rëcc yëpp lañ leen koy baal jéggal leen ko ba pare ñu bokk ci ñu jëm àjjana yàlla nañ ci yàlla boole mu ne bu mu la yéem de wax da sidqi loolu diggu dëgg la de digg la koo xam ne ki ko diggee dafa man yàlla dafa man li muy def nag ko mën moo tax bu la diggee ni la mën naa ci sama mën-mën ni la boo góorgóorloo kat ma baal la say ñaw ba bàkkaar euh, nangul la lu ëpp li nga def ci tiyaaba parce que lu baax la am moo tax bu dee lu bon moom yaa ko fa teg waaye lu baax comme moom yor na ciy leneen boo jiite la ciy dollil mu ni waxda sidq alladi kaanu yuwaadun lii mooy digéeb dëgg bi nga xamante ni moom lañ leen doon dig di leen ko wax ko lii de mu ngi lay wax doom ju baax nii lay mel ñaan yàlla yàlla dimbali ko ba la ko war ci baayam mu def ko la ko war ci ndeyam mu def ko la ko war ci digganteeg boroomam mu def ko su amee njaboot di yar leen yar bu baax yar bi nga xamante ni moom la yàlla di nee na bu ñu ko defee daal yàlla nee na dees na leen nangul li gën a rafet li ñu jëf bal leen seeni bàkkaar te loolu kat mooy diggu dëgg bi nga xamante ni moom lañ leen dig te yàlla lépp lu mu diggee dina ko def yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ni dañuy góorgóorlu ba mu mën a bokk ci xéewal yii mu diggee macha allah bokk jullit yi seen si jeexul bu ñu ñëwee nag wax na doom ju baax dina ñëw ci doom ju bon waaye waxtu yi ñu am moom tey moom doom ju bon xaju ci dañ am ci doom ju baax yàlla nañu yàlla defal dégg yàlla nañu yàlla defal toog nangul ñu suñu ajjuma nangul ñu suñu jàmm yàlla allahuma habib ilayna al iman wa zayinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal asyana wa jaalna min arrachidina wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu